ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جودها بل وينجيني أنت الكريم الذي تؤتي بلا سبب يا خير ساف سفا كل بتأجيني شفيت للعام فاقبل ما سكرت به استابت النون حبل الفاء وزيني كفيتني جملة الأحداء ملكي يا من عن العار تعميني وتنجيني رديت عنكم رداء لا يفارقني لرلتم على سقم وسجيني نفيت عني من خروب جفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني عني فرادي ومسني أدبر وهم تبتو في البحر عني لا أمد يدي إلى نسارى عبيد الماء وتيني كتبت في البحر عني لا أمد يدي إلى نسارى عبيد الماء وتيني ساءه من به أقي سكون به دنيا وأخرى بتسعين وتوتين لله جل يدي والحلم مهبدني وساق لي فوق ما إن سليتين لراد في البهر ñu ngi nuyu kenn ku si nekk si tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi di ñaanal Serigne Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool tam ànd ko wér di ñaanal Serigne Cheikh Moudou Moustapha Fall ibnu Serigne Moudou Mbende Fall xalifa général des Baye Fall di siyaare baax sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo waral jataay bi ñu jóge fee ba Saalum ci euh, région région bu ñuy wax Kaffrine département Malem Odar ñu jóge fa ay mbokki taalibe yebal ñu ci daayira bi ñuy wax fédération Jësbul Xulub te daayira Touba Mbadianeen gi jiite délégation bi ñëpp nekk njabootu sëriñ bi nga xam ne ñëpp amoon yéene ñëw ndax danoo programme oon ay oto waaye diggante bi suñu borom dogal taw bi am fi te dëkk baykat lan yàlla dogal ñu ëpp ci yëpp rek nekk ca tool ya daa ñu tànn ñun ñi yebal ñu pour ñu teewee ci bis bi sëriñ bi nag yàlla dafa dogal daf ñoo lebal luñ ko mun dafay ndax waxtu wu ne xelam mi ngi si ñun fu mu toll moo ngi nemmeeku at mu jot mu ñëw fa nemmeeku suñu kon kooku bu wootee ñun waa Saalum ñëpp war a bàyyi suñu itti yëpp ñu wuy ko waaye comme que danoo nekk ci jamonoy nawet te doon ay baykat moo taxoon ñu daal ñuy yebal ñun ñi nga xam ne ñoo ñooy tu yi ak ñi nga xam ne ñooy suñu waajur yi ñu ànd ak ñoom ñëw fas yéene dundal si sëriñ bi bis bi ndax wax dëgg yàlla amuñu lu loo xam te ni mën nañ koo defal ba fay ko ndax ñun ñëpp kenn ku si nekk ñun sëñ bi am na ci yow yëg-yëg goo xam te ni foo fu mu toll mi ngi lay nemmeeku kon du ñu def loolu di ko ñaanal mbàkk suñu borom yàgg ko lool te ànd ak ak wér bis bii nag ñuy ñaan bu déwénee bu dellusiwaatee tombeek ñun waa Saloum gépp ñu am jot te boobaa sëriñ bi dinañ ko xamal ne ko ñun waa Saloum yëg nañ ko yëg gin xam ne sëriñ bi yëg nañ ko ñun waa Saloum yëg nañ ko yëg gu mel noonu te ñëw fekkale ko ci bisam bii ci ay mbokkam rek mooy tax mu mën a xam lool waaye eh, jaam ak pexeem yàlla ak dogal bëggoon na noo ñëw ci ay oto yu bëri ndax wax la yim de ba ñi ngi ci mujjee keroog fédération sax ñëpp ñi ngi naa ma bu fekkee oto bi ngeen jël nañ ko bu ko defee ñu teel ko programme waye nak bi yalla tawé ci digënté bi té nek ay dëkk baykat mo waral mu démé ni waye sëñ bi loolu mom ñu ngi ci jéglu lu baax taw bi sax wutu na tax ñu ñëw ñu ñu ñu ñu ñu ñàkk ba ñu ñëw waye nak nga gëñ ñoo soññaat rek te xamné am nañ yëg-yëg ci yow go xam te nii mënuñu koo nettali dañuy ñaan su boom yàggal la fi lool té mo and ak wër ñu ngi jégluwaat baax a baax ci kàddu yi asalaam nee na siyaare goo xamante ni an nak mbekté gu wër ci mom ndax seen jëmm yi ñëw nee na mi ngi ko doon wax léegi rek nee na mbooloo la taxawee nee mbooloo mépp ñëw nee na ndax moom xam na yéen seen pas-pas ak seen yéene nee na kenn ku ci nekk nee na kenn ku ci nekk rek xam na ko bu baax a baax Mbàkke nee na kon mbooloo mi kenn des fa nee na ndax li ñu boole nee na mbokkuk taalibe la nee na mbokk ak Nenan la nee na ñenn ñi nga xamanteni ño ñoo nekk ci mbolo mi nee di mbokki ay talibé yo xamanteni ni nii ñun ñom moy seen am ci ño xamne ay wëllëreem lañ nee na ndax xàmmewu sax ak njaboot gi sëriñ bi nee na waral moy. nee da ngay na bokk pass pass bëgg-bëgg nee na bokk yéene it ak doxin wi nee na loolu moo leen booleeg jëmmam ji nee moo tax kon nee na seen siyaare bii bëgg na ci lool nee na ndax amu leen jot nee na sëriñ bi nee na mi ngi leen doon xalaat léegi rek nag ci nawet bi nee na ndax su xasee taw nee baykat moom dootul am kii nee na ngeen bàyyi lépp ngir jëmmam ju tedd ji ngir jëmmam ju tedd ji ngir jëmi sëñ Touba ak maamam ju tedd ja tax ngeen def nee na loolu it yàlla na ko sëñ Touba def nee te defal leen ci ñëw gi ak dem gi nee mu doon xéewal yu kawe nee na bés bii nga xam ne nee na wute naag bés yu bari nee ndigal day moo tax mu def ko nee waajuram mu tedd wii di sëriñ Saliou Mbacké Afia di sëriñam nee moo ko ci jox ndigal ci fii. nee te wax ko ne ko bu ko bàyyi mukk nee ndax am na jamono joo xam ne nii da ko naroon a bàyyi nee fekk yaramam xawoon a sutaate nee na ba mu ko yëgee nee daa mel ni lu ca jaare wér ne def ko te bu ko bàyyi nee ndax jox na ko ci ndigal nee na te boo ko bàyyiwul nee na wax ko ca lan lam ko ca wax nee na moo tax bés bi képp koo xamante ñëw nga ci nee na soo yeboo nga rafet njort bu baax nee na xam xaw mu lu ko lu la jafe woon xaw ma lu la tiitaloon nee soo yeboo nga rafet ci njort bu baax nee ndax ndigal moom nee na lu xas dugg nee na doonatut moom de nee na sëñ tubaa la na sëñ tubaa rek moo fi ne moom ngeen fekk si fii nee na ku ko gis rek aajom faju kon sëñ tubaa ngi fi jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke nañ ndëkk ñaan te wax amin amin ذوي الفسخ درا وسعانيني وجه لي اليوم عسرانا تلاشمني ولتكفيني كل شيء قد يعانيني